sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene ko fas yéene ci njiital sañ Ibrahima Diouf ci njiital sëñ Jibi juuf ak mbokk yi mu àndal yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel ci weer wii ñu tàbbi tey te muy sëhru rajab di weer wu am wàccuwaay ci borom bi mu boole ko ci ñeenti weer yi ñu gën a wormaal junj ci sootu taw ba wax ni sama weer yu tedd yooyu di fukk ak ñaar ñeentang ci seen biir yoo xam ni yu nu wormaal la ngeen xam ni daawuñu ci nangu tuur deret bu coow amaan sax ba weer yi dëgmal dañuy arrêté lépp ci lislaam ngir fonk gu fonk weer yooyu rajab nag ràññeeku ci lool te beru ñu tuddee ko rajabul fard ndax benn la moom dafa beru ci ñetti weer yële di muharram ak zul qaida ak zul xijja rajab googu doonte xaddiis sorot na ci sax mu saxihoon yi wéral xaddiis ñu bari daayifal ko dàq ko terewul boroom xam-xam yi maase nañ ci ñuy bari ci ñoom nangu ko wane ni dina jàngale ñu ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na shahru rajab wa shaabaana shahri wa ramadaan shahru ummati rajab mu ni weeru sunu boroom la yàlla moo ko cëroo sanbaan di baraxlu man yenant bi maa ko cëroo tudd naa seetlu boroom bi nga xam ni rañaane na jaamam bi comme yenant bi moo gën ñépp waaye weesul jaamu bu yàlla ndax yàlla ko sàkk kon tudd naa seetlu boroom bi rañaane jaamam mu jële ko màkkatal mukarrama ci genn guddi lay lan ndax buñ ne tukkib guddi moom la ñuy wax rañaan ci wolof waaw rañaan la tudd ci olof guddi la ko sunu boroom jële makkatal mukarrama yóbbu ko baytil maqdis mooy ca Jérusalem mu waaje foofee sunu boroom door koo yéege nag ba mu àgg ci boroom bi fu jaam mësta àgg fa mu àgg jaam mësu faa àgg waaw moo tax ki nga xam ni mooy sunu delluwaay bi gën a kawe moom rek la ñu gëm tay ak ëllëg di sëriñ Touba lum nu wax weranteetuñ moom nee na bil gis mi jëxraa du ay gént du ay janeer yàpp yaramam la ànde sunu borom yéegi ko ba mu àgg sunu borom fu ko kenn mësta àgg fa awxa ila abdihi ma awxa kon loolu lu xóot la yàlla yenkewel ko lam ko yenkewel kooku moog yàllaa ko xam waaye weer wii tàbbi tey guddi gi loolu xewe ci weer wii la nekk ñaar fukkeel bii la ak juróom ñaar mooy euh, kazu rajab dafa bari ñu jàngul ci réew mi dañuy yàq rek baatu kazu rajab di dem te xamuñu lu mu wundu boo leen ko firil du ñu xam luy kazu rajab dañuy wax kazu rajab rek jàpp ni kazu rajab aw weer la déedéet du weer kazu rajab benn fan la rek ci aw weer adat la keef ñi xam adat tey wàññi keef moo tolloog 20 razayin moo tolloo ak 7 soo boolee 20 ak 7 am 27 rajab aw weer la woom laa wax léegi ni bokk na ci ñeenti weer yi ñu gën a wormaal weeru rajab baatu arab lañu ñu jëlee ko ci rujoob rujoob di firi tanzim mooy wormaal dara weer wi dañ koo wormaal kon rajab weer la ñaar fukkeel bi guddeeg juróom-ñaar di kasu ci rajab yàlla daal ci jagleel jaamam bi yenantu bi muhammad alayhi salaatu wasalaam jële ko ci genn guddi màkkatal mukarrama rañaane ko yóbbu ko ci kaw mu jàkkaarloog borom bi suma danaa fa taddalla fa kaana xaaba xawsayni aw adnaa fa awha ila abdihi ma awha maa kasabal fuaadu nag maa la mu gis loolu wer werante amu ci kenn mënu koo weddi yenant bi la mu wax lépp wér na ku ko weddi rek di yéefar yàlla yéegal ko ci genn guddi mu jàkkaarloog moom bi muy rañaan mu dem ba sunu boroom yóbbu ko ci niveau boo xam ni bu dépassé woon jéego day lakk moom jibril mi gide yanant bi leeri aras day lakk mujj gi jibril nee na su ma séqiwaatoon jéego avancé damay lakk ci saa si moo tax daa am fu jibril yem ci ngay xamee ne yanant bi kenn du moom waaw ndax yenentu yàlla Musaa alayhi salaam sàkku woon na gisanteeg yàlla boroomam waaw yenentu yàlla Muusa alayhi salaam sàkku woon na gisanteek yàlla boroomam waaye yàlla ni ko lan tere nii walakin unzur ilal jabali fa in istaqara makaanahu fa sawfa tere nii waaye falammaa tajallaa rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa xarra Muusaa sayqan mënu ko gis mënu ko gis bi mu ko sàkkoo moom musa dafa mujj xëm xëm la ko jural yàlla ferñeent ci leeram la manifesté ci kaw montagne bu mag boobu nga xam ni 775 kil kilomètres mooy guddaay bi 775 kilomètres montagne bi gën a rëy ci àdduna foofee la sunu boroom doon manifesté woo wane leeram ferñeent leeram ci kaw montagne bi ni musaa su la su montagne bi résister sama leer di nga ma mën a gis waaye su ko mënta résister nag mënoo maa gis lan tere nii waaye xoolal ci montagne bi rek daal ci yebal lu toll ni bën bënu puso ci leeram la sànni ci montagne bi montagne bi xar 779 xar-xar Moussa daal di daanu yuuxu wéqu xëm ba mu yeewoo la ni ko tuub naa bu baax a baax a baax a baax ndax yow yàlla kenn accédé wul ci yow kenn accédé ci yow kon li Moussa mu mag moomu alayhi salaam nga xam ni moom la alxuraan ëpp lu mu tudd benn boroom xam-xam du ci werante alxuraan tudd na yenent yàlla Moussa 136 fois ci téere tudd Ibrahima 69 fois tudd Noohin 43 fois tudd Yuusuf ak Lóot 27 fois tudd Aadama ak Isaa 25 fois tudd Haaroona 20 fois ñëw ba ci Muhammad mu tudd ko fois téere bi laa wax alxuraan kon ki ëpp lu mu tudd ci téere bi di alxuraan moom yanantu yàlla Musaa la mu bokk ci ulul azmi borom dogu yi yàlla fonk lool waaye bi mu ne yàlla dama lay gis dani ko mënoo maa gis xoolal ci montagne bi yem ci kon da xam ne yanantu bi kenn du moom moom yàllaa ni ko ñëwal wutal ko gidd bu koy buy dox ci kanamam di ko yóbbu muy muy muy Seydina Jibril alayhi salaam waaye Jibril mi koy yóbbu te Jibril bu ñu la waxoon ni ko yàlla sàkke ak ni mu mel Jibril mas naa toog boo demee ci téere bu ñuy wax duratu naasihin da nga ko fa fekk boo demee ci téere bu ñuy wax nushatul majalisi da nga fa fekk lii may bëgg a wax soo demee ci téere bu ñuy wax tanbihul xaafilin da danga ko fa fekk jibril mas naa toog di niir boppam xam ngeen jibriil juróomi téeméeri laaf la am ci côté ndijooram am juróomi téeméeri laaf ci côté càmmooyam damay nuyoo de commencé ko juróomi téeméeri laaf ci ndijoor juróomi téeméeri laaf ci càmmooy benn laaf bu ci jibril tàllal mu laal asamaan ak suuf mission bu wóoray tax mu tàllal benn bi xutbu zamaan ku yàlla jox nga moom jamono jibril sa plan këru àjjana mu ngi ci mbaggu jibril la koy wan la koy wan boo tollee ci wàññ jibril masa toog di niir boppam rafetaay bi ba mu yàgg mu laaj borom bi ni ko ni ma rafeteeg tubarkàlla ni ma taaroo xanaa yàgg nga ci man bi may defar yàlla ni ko waaw def naa ci yow téeméeri fan da di la defar 100 jours mu ni waaw àdduna nga defar ko ci juróom benn fan man téeméeri fan kon war naa laa faye jaamu yàlla gu la kenn mës ta defar moom jibril alayhi salaam ñaari rakkaa la julli njàpp mi rek ñaar fukki junni at la ci def bi muy jàpp pour bëgg a fay yàlla ñi xamul nag temps ak espace xamuñu dara ci yàlla ñooñ jaruñu sax di waxal temps ak espace amul ci yàlla temps ak espace kenn du ko dugal ci yàlla nga déggee yàlla naan naa taxawal jaam ñi juróom fukki junniy at nga koy wàññee ci sunu at yi dof nga xamoo yàlla temps ak espace yàlla dépassé nam xel moo tax jibril ci niñ ko xaymaa ñaar fukki junniy at mooy njàpp li bi mu noppee mu taxawal ñaari ràkkaa diggante jàng saar sujjóot rukkoo yi dëju ci rukkoo yi toog yépp rek def na ci bu ne ñaar fukki junniy at ba mu jeexalee ne yàlla ku la mës a defal jaamu gu mel nii sunu borom ni ko kenn mësu koo def mu ni ko kon loo ma ciy faye yàlla ni ko du ndigal da ko doon def sa coobare bopp digaluma la du ndigal du sama izn da ko doon def sa coobare bopp mu ni haa mu ni waaw sa ñaar fukki junniy ràkka yi ngay naw ci sama wet li muy rëy rëy dinaa sàkk jaam boo xam ni moo tax ma sàkk la yow moo gën ci mbindeef yépp mu ngi tudd Seydunaa Muhammad dinaa ko feeñal muccug jamono dina am xeet wu ma koy boole ñu tudd ay jullit ñu mën a tooñ la ñuy doon te bari ay bàkkaar mooy ñun loolu la yàlla waxoon ñu bari bàkkaar mën a tooñ te néew doole waaye moom la ñuy yaakaar wékku ci moom dinañu xëy suba teel julli ñaari ràkkaay fajar seen ñaari rakka yi moom a gënal sa ñaar fukki junniy rakka yi nga doon def ngir jëmmi jooju ñu ànd moo tax mënunoo fay yanantu bi moo tax ma ne yenantu bi gën lépp moo tax keroog bi mu àndee jibril ñuy rañaan muy rañaan dem na ba jibril mënatu la séqi jéego dem yàlla dani ko jibril arrêt reculer dellul ginnaaw bul agsi bul dépassé foofu bala ngaa seey ni Moustapha avancé ñëwal foofa nag yenant bi wax na jibril nu xarit di bàyyee xaritam fii mu ne ko borom bi fii la ma yemloo wéyal te dem dina la gideel boppam foofa yàlla bi muy wax ak yenant bi ci rañaan gi baatu aboubacar saddiq lay waxee ak moom xarit xarit fort aboubacar saddiq la yàlla jël abbu baatam jël ko di ci waxee ak bi alayhi salaatu wasalaam yenant bi xaw a yéemu ni ko mais baatu aboubacar lay dégg mu ne ko waa damaa xam ne dangaa ragal fii mosu fee jaam mosu fee agsi bëgg la fee accéléré moo tax ma indil la sa baatu soppe bi ngeen nga ñeme ñëw loolu mu ngi sunu kanam ñaar fukki ñaar bi guddeeg juróom-ñaar mooy kazu rajab yàlla di war naa màggal ko yéen ngeen am tawféexu yéen waa fédération Mafatihul Bichri ngeen am tawféexu dem seeti sëriñ Touba Serigne Mouhamadul Muntaqa mu tànnal leen bis bi njëkk ci weer wii damay nettal lii pour ñu xam lim ñu tànnal lu mu doon rajab gim ñu tànnal lu mu doon laa bëgg ñu xam mu tànnal nu weer wii bis bi njëkk ci rajab yàlla jagleel ci sëriñ Touba doom joo xam ni wilaayaam kenn nattable wu muy sëñ Fall. réew mépp ak biti réew ñépp a maase ci sañ Fallou kenn rek la amul ñaar yàlla tànn ko mu gane àdduna ci ñaar fukkeel bi guddeeg juróom-ñaar ci rajab tolloo ko rañaanu yanant bi mu tànn leen yéen ñi nga xam ni li ci ëpp ñu ngi aju ci sëñ Babacar Ndiaye Cargaan boroom mayel landang wàllu yi woowu nga xam ni ku liggéeyal sëriñ Touba la sëñ Babacar Ndiaye Thiargane 99 la dund juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent téeméer yu manqué benn la gane àdduna ca Mexe Lambaay wàcc ci liggéey ca dëkkam ba Mayel Landang juróomi fani korité mu waaj dem jëmm jooju nga xam ni sëriñ bee ni ko woon yow ak seex Maxtaar Mbay Keere féete leen ma nii ci penk bi fukki kilomètre ak benn nga sanc fa poussière bu nar a ñëw Touba song ma man sëñ Touba na njëkk a dajeeg yow ëllëg ak ku la yaakaar ma dox seen digganteeg sawara sëñ bee ko dëyal fee mu dëkk di mexe làmbaay di di di mayel landak doxal sama digganteeg pënd bi ndox sama digganteeg luy ñëw fii boo lëggee ma dox sa digganteeg safaraa ku la topp Cheikh Babacar juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent ci ngay xamee ni sëñ Tuubaa kenn du moom xam nga ni moo mage na sëñ bi lu bari ci saa yi dama leen wax léegi 1836 la feeñ sëriñ bi feeñ 1852 wala 3 lim ko mage bari na moom ay doomam rek dañuy ay mag sëñ Babacar moom doom ya mu am rek dañuy ay mag boo ko xoolee ca sëriñ seex ndeela ma ko njëkk a wuutu rek day mag sëñ seex ndeelaa ko wuutu 35 ba 49 mooy xalifaam sëñ seex ndeela njaay moo wuutu sëñ Babacar 35 ba 49 sëñ Modou Soose jël 49 ba 60 yow lañ doon wax sëñ Daam Soose ginnaaw moom 60 ba 78 seex Masamba Njaay jël 78 ba 85 sëñ Abdou Yaasin jël 85 ba 91 Serigne Modou Diarra jël moom la ñuy wax Serigne Ndiaye 91 ba 2001 Serigne Madjo Ndiaye jël sëñ Abdoul Majid ñibbi 80 2000 2001 sët yi commencé Cheikh Matar jël 2001 ba 2007. ñibbi Cheikh Daouda Ndiaye mi ñuy jooy tey jël ba 2021 sëñ Mbaye Ndiaye Mariama yàlla na fi yàgg kon ki ma wax mag la ca mag ñu njëkk ña la bokk ngeen xool ni mu laxasoo woon bëgg sëñ Touba gëm ko ba muy jar bakkan may ma tuuti rek ma wax ci sëñ Babacar te jàll ma ni ba muy jar bakkan moom la gëm sëñ Touba Cheikh Babacar ñu bëri xamuñu ni moo indi ñi mbokkam yu baax yooye di sëñ Aline Diouf Lambaye sëriñ Mor Mané Mbaye hmm? ok ku teel a gëm sëriñ Tuubaa la ku teel a wuti yàlla la ku teel a wuti alxuraan la ku teel a wuti xam-xam la moo laxasewoon fii dem ba Gàmbi ca Ñamina dafa jàng ji fekk fa góor ji Boubacar Cissé jërëjëf jërëjëf ah ma ni ba Gàmbi ndax bëgg yàlla ndax bëgg lu baax mag ñi fii la ñu nekkoon dama bëgg a wax li tax ñu defal leen lii ngir xam ko ki ngeen wékku ci moom nga xam ni moo njëkk a yeble fii 1919 dinaa ci ñëw sëñ Babacar njaay moo njëkk a yeble 1919 yebal jàmbaaram ja sëriñ Mouhamed Sakhir Gueye mi nga xam ni imaam la ko defoon ca ca Mexe Lambaay boole koog mag ñu ñëw fii di daan seen doole bi ñu génnee ci crise bi amoon après deuxième première guerre mondiale 14 18 dinaa ci ñëw. ma wax ni bëgg yàlla ak bëgg lu baax ak bëgg xam-xam ak fi mu fekk baax mexe làmbaay yéen ñëpp xam ngeen làmbaay la xewoon démb avant ñuy am ko mel ni Cheikh Babacar làmbaay dimbali woon leen nekkul lu évident yombul de wallaahi lawlaahu kaana naasu kulluhumoo ala tariqati iblis sama samaja loolu la sëriñ seex coro mbàkke wax nee bu di woon ak sëriñ Tuubaa kon nit ñi ñëpp nit ñi ñëpp ci loxol iblis dañuy dee te booba dem nañ ba kuy wax bërëb sàngam de nangam nangam ñaan mbaa melul ni làmbaay àggul ci làmbaay loolu waxee woon defe naa sëñ Musaa Ka leeral na ko fépp mel ni làmbaay loolu wax la kon faaw ñu am jàmbaar ju leen dimbali Cheikh Babacar dimbali làmbaay loolu laa bëgg a ñëw avant muy gis sëriñ bi wax naa leen lu bari mage na ko sëñ bi ci Zahir ndax 1836 la feeñ sëñ bi feeñ 53 kon fukki at ak juróom-ñaar la ëppalee sëñ bi ci Zahir ku teel laxas la dem toppi góoru yàlla soose gu ñuy wax sëñ buu Boubacar Cissé booba mag ñi li xew mooy fu ñu dégg nitu yàlla dem wari kookaa nga woon ñamina ca Gàmbi def ak moom juróom-ñeenti at yoo xam ne jàng ak liggéey la koy defar juróom-ñeenti at la nekk ci sëñ Boubacar Cissé ci jàng ak liggéey ba bis sëñ Boubacar Cissé ni Seex Babacar damaa yaakaar da ngay ñëw dellu liggéeyal nga ma liggéey bu wér ànd ak yéene ànd ak jëf waaye nag dama xam ni leer gi may gis muy ñëw googu leer ma gis ko ci yow àttanatuma la te leer googu borom jamono képp ci nga war a wékku fi nga toll tembe liggéeyal nga sa boroom ba ki lay yor mooy moom jamono kooka nag sa réew lay feeñe ca penku ba di nga dégg ji ab wooteem saa boo ko déggee na nga wuy ci moom làq na ngërëm ci sëñ Boubacar Cissé door kam dellu si mexe nekk ci ba wooteb sëriñ Touba agsi ci moom mu fekk sëriñ bi Mbàkke Kajoor sëñ Babacar Ndiaye mooy ñeent fukkeel bi taalibe sëñ Touba ak juróom-ñaar 47. Mbàkke Kajoor la jaayanteeg moom sëriñ bi gërëm ko ci lu gaaw ni ko dellul mexe làmbaay nekk ci liggéey mag ñam fa fekk xaw a mel ne lu jaaxle kii nu muy ñëwee tey tey sunu sëñ bi di ko gërëm muy dem te ñun ñu yàgg fi ah loolu yàgg naa am. gis ngeen nam defoon Cheikh Issa Diène ci bis bi la ne ko am nga ngërëm pas-pas yii ñëw ñoo bokkul sëriñ bi ni li ko may loolu mooy bi mu ne yunnu wut si ma laa yëg ni liggéeyal liggéey na feneen kooku duyul ko ndabam ba muy bëgg a fees mais feccantal moo ci des te kooku mënu koo feccali maa ko war a feccali ñi ëpp ñi fi nekk nag dama fekk ci ñoom loo xam ni faw mu laaj ñu yulli ko fóot ko ba mu set ñu door a duy kii nag fekkoon naa ñu yulli fóot ba nopp def ba muy bëgg a fees feccalee des moo tax mu gaaw a neex a feccali te juróom-ñeenti at ya nga nekkoon foofee la ko sëñ Tuubaa wax la nga liggéey lépp sama loxo la doon tàbbi man Ahmadu ndax maa moom jamono kala tegtal wax na dëgg man mii la la doon tegtal dal ko yebal mu demaat dellu mexe làmbaay nekk ci liggéey ba yàlla dogal mu ñëwaat yoonu ñaareel wow ci la indi mbokkam yooyu sëriñ Mor Maane Mbay ak sëñ Aline Diouf làmbaay ñu fekk sëriñ bi ngaabu moo tax sëñ Alioune Diouf ko fonkoon la sëñ Alioune Diouf it daa bokk ñi nga xam ni ay rakkam lañu te dem na ba benn jëmmi jamono sëñ Alioune juuf di jàmbat tànk buy metti sëriñ Babacar Ndiaye ni ko liy metti tànk bi mooy ruu yi nar a topp ci yow te amagoo ndi ndigalu sëriñ bi faw nga jëlu ci sëñ bi mu téyel la loolu ca la ko yóbboo mu dem ci sëñ Touba. loolu mooy ñëwug sëñ Babacar Ndiaye Thiargane mu nekk nag ci liggéeyal sëñ Touba xanaa xamu leen ni Cheikh Babacar Ndiaye Thiargane liggéeyal na soxna Njeng Silla mi maami sëñ Saliou waaw ci wàllu mbay sëñ Saliou woo ko nettali boppam nee na sama wéejur wa de soxna Faat Jaxate wéejuram soxna Njeng Silla ak ma nga xam ni sëñ Modou ak su Jaxate ko yoroon ca méew nu mas naa am jaaxle ci toolam mu dara booy amul ko mu ñëw wax ko sëriñ Touba sëñ bi yebal ndaw kooka dem ndax da ko mënta matale hmm? bañ ko waxaatee sëriñ bi di ko wax si fekk sëñ Babacar Ndiaye Kargane di nuyu sëñ Touba daal ni daa mel ni kon moom la fi yàlla yebal demal taxawul ma liggéey bi sëñ Babacar matal ko sëpp keroog sëñ bi bég loolu waral na sëñ Babacar Ndiaye dem ci man dama lay teral ba tey loolu aadala la ci ñoom fi ñu leen gisee teral leen sëñ Moustapha saali wax na kon ku liggéeyal sëñ Tuubaa la waaye li mu gën a dimbalee tundu làmbaay tama wax leen ni làmbaay ni mu meloon bi ko yàlla boolee ci jataayub sëriñ bi sëriñ bi toog di warga wargaw mbégte woo xam ni sëñ bi moo ne dama leen di berndeel tey yéen samay taalibe tey lu fi waay fas dina ko jot sëñ Tuubaa mu tiim attaayaam ni tey lu ci waay fas jot ko xelli kaas ku ngeen dégg ci mag ñi mu newoon fa sëñ bi jox na ko kaas ku mu jox sa kaas nga fas ci lépp li nga bëgg ni fuuf naan bu joxee sëñ Babacar Ndiaye sëñ Babacar Ndiaye barkelu ci ngir wor ma li ci des fi mu toog la juug suufam di ko sotti ci suuf si bu sëñ bi joxee kaas ku mu jox nga naan bu ko joxee mu mus ci li ci des mu sotti ci suuf si jal ko dajaloo ba fees mu génnee kaala gi mu yoroon ëmb ko ci am ñu ko seetlu gis ko wax ko sëñ Tuubaa bi ni ko Seex Babacar loo jublu ci lii ngay def mu ne ko Mbàkke yow ku la teg bët ajoom faju na ku la liggéeyal ajoom faju na koo yéene ajoom faju na ku toog sa jataay aajoom faju na kon man taxatuma may wax sama ajo faju na waaye damaa jóge ci suuf soo xam ne dëgër nañu bopp te te te am na fa doole muy làmbaay te bu ñu amul ko leen tilu ku fa juddooti di dem sawara te yéenewu ma leen ko te mënumaa xéwlu man dong bàyyi sama njaboot ma bëgg li nga ma jox ma dajale ko su ma demee def ko ca teen ba def ko ca selebe yoone def ko ca teen ya walla mbay yépp suufe ëllëg su may muccit sama njaboot mucc sëriñ bi ni ko tubaarkàlla jullit noonu lay mel jullit see éggagul ci lu baax fu ko amee yéene ko ñépp rek éggagul ci njullit dëgg ni ko waaw góor indi ñu ñaanalaal ñaanalaat la ci mu jox ko suuf si mu ëmboon sëñ bi tifliwaat ci ñaan ni ko boo demee def ko ca teen ya boo demee defe naa mexe làmbaay dañ la wan teen yi dañ la wan fi mu këppoon ay ñaanam boo demee maye la ki fépp def na fa ay ñaan yoo xam ni sëriñ beeg ko jox pour yéene ko ñëpp hmm? kon ku teel a liggéeyal sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul la loola mu defoon nag di yéene ju rëy moo jur tey kuy doomu làmbaay làmbaay teraanga ji fekk la foo nekk moo tax kuy doomi làmbaay làmbaay foo mën a nekk rek war ngaa bëgg sëñ Tuubaa te gëm ko te làmbaay yàlla defal na leen taw tawféex mooy gox boo xam ni quatre-vingt-dix-neuf pour cent sëñ la ñu gëm man ci làmbaay gi ma xam quatre vingt pour cent quatre-vingt-dix-neuf pour cent boo jëlee téeméer quatre vingt dix ñëpp taalibe sëñ Tuubaa la ñu loolu nag sëñ Babacar liggéey na ci liggéey bu rëy day tax làmbaay gépp nangul sëñ Touba téeméer ñoo jël juróom-ñeent fukk ay taalibey Cheikhul Khadim lañu 1919 nag ci la ko sëriñ bi ci la sëriñ Babacar njaay jox ndigal njabootam ok jërëjëf jërëjëf Ndiaye jërëjëf Ndiaye Ndiaye ndeysaan jërëjëf Njaay jërëjëf nee na ko ñu woy sa maam def dara jërëjëf Njaay ma ni nag 1919 nag bi ñu génnee ci guerre mondiale bi xam ngeen 14 18 moo nekkoon guerre mondiale biñ ci génnee nag àdduna bépp jafe-jafe am ci lekk ak naan ak jàmm lépp jaxasoo te taalibe yi war a fàggu hëddiye ju ñuy joxi sëñ baabakar sëñ Babacar yebal ay taalibeem sëñ moodu saxiir Gueye mi nga xam ni moo nekkoon imaam ca Mexe làmbaay ndax moom dafa sañ ci dëkk yu bari lépp di fàggu addiye di ko yot sëriñ Touba di ko def ci liggéeyu sëñ Touba boo demee fa ñuy wax guy làmbaay sëriñ Mouhamad Sey la fa dëgaloon soo demee Mexe làmbaay mu jël imaam ba def ko muy sëñ Mouhamadou saxiir Gueye waaw sëñ Daouda juuf mu bàyyi ko euh, fële ca Mayel Landang sëñ Ibrahima Tikke njaay mu bàyyi ko Makassar dafa yoroon ay mag ñoo xam ni moom rekk lañu ñu gëm sëñ Tuubaa koo dimbali mu yónnee fii nag 19 ñuy fàggu hëddiya di ko def ci liggéey bi biñ ñëwee booba jënd ak jaaye fi am mag ñu baax ñii nga xam ni tey ñoo meññ ñii fi toog ñu nekk ci liggéey bi ci dakaar boo demee fële ca di foncier fu ne waa lambaay lambaay yaa nga fa Sandaga pikin gi yëg fa nekk ñuy lu lew di dajale seen addee di ko yóbbu xamoon naa góor gu baax ñoo sëñ sëñ Modou jaañ Diagne waaw ci sonnoon la sëñ Modou Fall jaañ taalibeem la taalibe sëñ Babacar Ndiaye la moo jur sëñ Fallou Mbacke jaañ bi nekkoon traison waaw ak ñoom Omar Diagne Omez ak seen baay ak sëñ Abdourahmane mi baayam bu baax ba sëñ Mor sëñ Mor Ndiaye Lambaay ñépp a ko xam nga xam ni Serigne Fallou moo ko boole kóllëre ak njabootam boobu te ñuy defe naa sëñ Mourtada Juma Sey ku nekk gis na ni mu duggee ci biir kër sëñ Baye Mor ne jarbaatam lenke di ko dawalal di ko dawalal moom mii magam soxna la ci sëriñ mag ñi nekkoon fii nag loolu liggéeyu sëñ Babacar Ndiaye lañu nekk ci lan fàgg lu lew di ko mën a dajale di liggéeyal Serigne Touba ci liggéeyam bi kon bunt bii mu ubbil pàkku làmbaay sëñ Muntaxa loolu la yëg mu tànnal leen bis bi njëkk ci rajab te xam ngeen tam ni njabootu sëñ Babacar Ndiaye cargaan li ci bari ci sëñ Fallou la ñu nekkoon li ci bari li ci ëpp sëñ sëñ majju la joxewoon woon sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mu nekk sëñ Mbacke Soxna Lo waaye li ci bëri ñu ngi woon ci loxol sëriñ Fallou waaw nga xam ni kon liggéey bii di weer wii teru di weer wi sëñ Fallou gane woon àdduna bu ñu sëñ Muntaxa tànnalee bis bi njëkk ci rajab kooku delloo na kon delloo na kon yëf ya mu yellee te gën faa rafete sëñ Fàllu mi ñu ci booleel nag jële naa ci ku baax koo xam ni sëñ Màjju Njaay ci boppam sëñ Màjju ku réyoon baatin la moom sëñ Màjju Njaay waaw moom moo mujje ci doom yi ci wàllu xilaafa gi waaw ndax moom wax naa leen léegi 91 ba 2001 la nekk xalifa sëñ Babacar Ndiaye Thiargane ginnaaw bi sët yeey ñëw am na taalibeem boo xam ne sëñ Màjju sëriñ musaa Diop su ma juumul la tudd euh, gendarme la woon màggal jot mu ni day màggali supérieur am ci gendarmerie ni ko boo màggalee ma dàq la boo màggalee dama lay viire jële la fii waaw jërëjëf Ndiaye sëñ bi dañ ma ko présenté wul ah ah doomu sëñ Massamba Ndiaye la ah waaw waaw nuru na ko kay waaw nuru na ko kay Cheikh Massamba Ndiaye rek moo nekk xalifa sëñ Babacar Ndiaye Thiargane 60 ba 78 ok waaw kay ah, Ndiaye hmm. nuru na ko kay <laughs> waaw ndeysaan hmm? ndeysaan jërëjëf njaay maa ngi woon fan damay réer nag léegi-léegi sama bopp lu ne ciy ñëw waaw mu mu ni damay màggali mu ni damay màggali ah waaw mu ni damay màggali ki ko supérieur ci gendarmerie ni ko bu ku màggali ku màggali ku mën a doon boo dikkee ma affecté la feneen viré la def la mise en pied c'est fini teg la fële moom nag gëmam ci sëriñ Madiou Ndiaye mu ne ko kenn mënu maa teree màggali barke sëñ Madiou damay màggal mu ne ko baax na on verra dinañ gis dina leer màggal jot mu ne tër génn dem ba mu demee nag wax ko sëñ Madiou sëñ Madiou ni ko baax na waxul dëgg de daal koy ñaan ba muy ñibbi si ñëw ba ci yoon wi moo naan su ma demee moom xam naa bee boo ma jagal nañ ma samay saag ak yooyu pour dàq ma mais garaawul mais bu ma yóbboo feneen tam affecté ma fii ba Tamba ma dem sëñ bi jaral na ma ko ñëw ba ci yoon wi romb koo xam ni otoom dafa crevé pneu bi moo crevé ndeke ki crevé moo supérieur gendarmerie Sénégal gi moom xamu ci dara moom mi màggale woon mu wàcc rek ñëw gis ko muy xaw a nekk mag sonn ci pneu bi mu ne ko baal ma dimbali la daal di ñëw. téye pneu bi dindi ko di ko defaral defaral ko ko ba lépp ak mu remplacer ko pneu de sécurité dugal ko daal ni ko jërëjëf ki nga xam ni moom moo ko supérieur mu koy defaral otoom mu ne xale bi jëf merci beaucoup léegi man maa ngi gendarmerie maa jiite gendarmerie bi yëpp sama carte de visite a ngi nii saa boo ci amee problème woo ma mu ne ko yow kon yàllaa boole ndax man sama supérieur dana ma woon su ma màggalee daf may dàq ma wax wax mun ma daf may dàq damay viire yóbbu ma feneen affecté ma ma demoon màggali ngir sama gëm ci sëñ Màjju Njaay mu ne ko mais yow fa laa jóge ñoo bokk sëriñ nga xam ni kooku sëñ Màjju joo ko yebal mu daal ni ko ci saa si kan la mu wax ko ko mu ni ko moom bala nga fay egg ma viré ko moom moom mi la waroon a viré dafa woote ne àndal leen ko bu mu nekkati foofu bu mu fa xëyati ne àndal ko fa sori nga xam ni gisul ba tey kii mu tëkk woon tax sëriñ Tuubaa kenn xamul lu mu doon lii ay ndongay ndongay sëñ Tuubaa ñoo koy def waaw ay ndongay ndongoy sëriñ Tuubaa ñoo koy def waaw sëñ Màjj ku yéeme la woon ku yéeme waaw léeg-léeg mu dawal oto bi taxaw bu wàccee taxaw ñëppay daw di ko nuyu xam nga rek jëmm ji ni mu mel ak ku yéeme la woon sëñ Màjj sëñ Abdul Majid kon liggéeyal sëñ Tuubaa moo wóor ñoom seen baay ba dafa liggéeyal Seexul Xaddim bi mu jaree bakkan nag bakkan ndax wax naa leen gis ngeen li xewoon jarbaat ba moo jébbalu woon dem tuubi ndayam di jooy mu naan ko tuubi ruubi ba Babacar Cargaan Serigne Mor Maane Serigne Aline Diouf ñi lee ko daani keroog dee na boole sor ci mburumbal ñuy kenn kenn noo far ba jàngay darmbal muy bocc ay gobar di feeñal damm di boole dóor ak yeew amul far jàmm te naan ba leen Cheikh Bamba mbaama ren di murit yépp ma nga naan ba màndi murit yéen naan ko bamba nas na ruu yi yow ma alastu yow faral tey nooy yi sëriñ maa maanee ko tontu booba ni ko dangay ngay ci dañuy dem Touba folli la tey tekk sa ndomb ak tànk moo gën a yomb lii nga wax noo lànk kon booba bakkan lay laaj ñoom foofa la ñu gëmee woon sëñ Touba di taxawal ay dëkk di taxawal ay tool di fàggu seen hëddiya boole ñu dara ak sëñ Touba Dakar ji itam fi ñëwee njaal benn gu metti la te xam ngeen ni murit ci ginnaaw lañ ko tegoon dañ ko xeeb yéen ñëpp xam ngeen ni murit dañ daan wax jur koog jur mbërum làmbak salveeg baara njinde ñoo yem daaw liggéey ci administration bu Sénégal daaw ci liggéey murit yi ndax xeeb leen looloo waraloon mag ñi magi bawol bawol yi teel a xam seen bopp nekk ci liggéey bii ñëw fii defar ay marché di jaay ay bant di jaay ay bagage lu ne ñu koy jaay di fàggu addiya di ci faggu ay addiya di ci faggu paas di paasal seen njaboot ñuy tukki tey adduna bépp ñoo ko not ñoo ko not wàllu économie adduna bépp murit yee te bu fekkee économie bi mu ngi ci loxol murit yi 80 pour cent bawol bawol yi aju làmbaayam ci am na lu ma ci xam ndax man réew yi yëpp laay conférence réew yi ci adduna bépp lu ma ciy dem te tey boo fekk fa seen njaboot ñoo ŋànkul adduna bi teg ko ci seen loxo loolu nag bëgg sëñ Tuubaa moo koy maye feeñoon nag ci weer wii di Cheikh Mamadou Fadilou ku nekk xam na ni moo ne woon man maay Sénégal man sëñ Fall man maay Sénégal man maay ceeb man sëñ Fall ku ma bañ ceeb la bañ bu mi jotee ñéppay xaar ceeb ñëpp may xaar man daal ni may réew mi waay Sëriñ Tuubaay sama baay Alaaji maa liggéey sama nijaay Rasuul laay di sama maam Sénégal jeex na maay Sénégal ku jaaxle man rek lay woo man a daal ni drapeau bii di vert jaune rouge man lay firi man sëñ Fallu vert bi mooy man duma weer kenn jaune bi mooy man duma sonal kenn rouge bi mooy man duma rusloo kenn ku ma woo moom sëñ Fallu kon kookooy Sénégal sa turandoo sa sëriñ sa sëriñ sa Ibrahima Diop al Mashari ah waaw sëñ Kalsaan sa sa sa sang ba sëñ Ibrahima Diop al-Mashari moo ñu portaleel sëñ Fàllu mooy kan dañu ko maanaa la fadlaka laa unsa wala zakaru waaw sabaxta jii la ka fii ilmin wa fii adabin wa fii fadaili lam tuzhara bihal fikaru waaw sëñ Fàllu nee na waaw sëñ Ibrahima Diop al-Mashari nee na sëñ Fàllu yow sëriñ fàllu de sa may gi ci yow mu ne waaw mu ni ko kenn amu ko góor amu ko jigéen amu ko waaw sëñ fàllu may gi ci yow góor amu ko jigéen amu ko waaw maanaa la fatlaka laa la wala zakka kuy sëñ fàllu mu ne ko sabaxta ji la ka fii ilmin wa fii adabin yaa féete kaw képp ko bokkal génération yow sëñ fàllu ci xam-xam ak teggin waaw ah. ak ay ngëneel yoo xam ne nee xel mënu koo takk wa fii fadaili lam tus lam tushër bihal fikkaru ni ko yow sëñ fàllu laxat tanassata min shamsin wa min xamarin fa sirta bahran min anwaari tasdaxiru yow yaay ki nga xam dangaa ganee àdduna yow sëñ fàllu ci diggante jant ak weer ci nga ganee àdduna muy maam awo buso ak cheikhul xaddim kon jant ak weer la séq nga gane àddina ñëw di géej mbàmbalaan moo xam ni sa géej gi li muy duusi yëpp ay leeri sunu borom moom lay génne waaw kooku mooy Cheikh Mamadou Fadilou weer wii ñaar fukkil bi guddeeg juróom-ñaar la feeñoon lu jiitu muy ñëw sëriñ Touba annoncé na ko sëñ Fallu baayam bu ñuy wax sëñ Mamor Jaara boroom Saam ak maam ju ñuy wax sëñ Mbusoobe ñoom la sëriñ bi waxoon dama nar a am gan goo xam ne sunu boroom ma ko dig may na ma ko guddig àjjuma gële dëppook ñaar fukkeel bi guddeeg juróom-ñaar di guddi gi yenant bi rañaane woon Makka jëm baytil maqdis door a dajeeg boroom bi guddi googu la ma yàlla dig ni dina feeñ sama biir kër te jamono bi muy feeñ daf may fekk ci xal wa duma mën a génn yéen ñii la borom bi tànn ngeen dem tànnalal ma ko aw tur tur wi nag yàlla jiit na leen ci sunu borom tudde na ko Muhammad waaye lii topp ci turu Muhammad wi nag sunu boroom nee na dina yónni ay ndawam ñuy jundullaahil xaaliboon di malaakaam yi not yépp ñooy indi li topp ci tur wi su waxtu wi jotee la leen ci war nee leen Muhammad te téen tur wi li ciy topp ci kaw jaww ji ngeen koy seen fekk na lu ko jiitu sëñ Abdou Kumbaan Ñang xam ngeen ni moo yoroon soxna Awa Buso ci la am alaaji Afe ñan alaaji Afe Ñang moo jur sëñ Moodu Maamur ñan mi ñuy jooy bu yàggul baayam mooy alaaji Afe Ñang alaaji Afe Ñang nag sëñ Abdou Kumbaan Ñang a ko jur sëñ Abdou Kumbaan Ñang moo njëkk yor soxna Awa Buso suñuy nopp avant sëñ Tuubaa di ko yor sëriñ bi dafa doon rasulullaay ci lépp maa ngi koy wax keroog ci màggalu daaru salaam Duyoli bi ma leen di waxtaanal sëñ Abdou Dia Mbacke boo seetee ndayam moom sëñ Abdou Dia Mbacke Duyoli mooy soxna Xadijatu am na fu mu njëkkee ndax sëñ Mbacke Anta ko yoroon mag magi sëñ Touba ak maam Cheikh Anta ginnaaw bi sëñ bi jël ko so soxna Xadijatu ñëw ci sëñ tuubaa jural sëñ tuubaa ab taawam di soxna Faat ja Fatima yanant bi tam moo yoroon Xadijatu xadijatu njëkkewul ci yenant bi mu ñëwee ci yenant bi la ko jural taawam di fatimatu bintu rasul te boo seetee njabootu yenant bi soxnaam yi ñu ci bari am na fu ñu njëkk a liggéey laata ñu ñëw ci moom sëñ tuubaat mbiram noonu la demee soxna awa buso sëriñ abdu kumbaan ña nga ko yoroon ba am ci alaaji afe ñang mooy magi sañ fan ñoo bokk ndey mu tëdd guddi moom alaaji abdu kumbaan ñang sunu boroom wan ko ci nim ko baaxoo wane ni ko soxna sii nga yore di soxna Awa Bousso dina am doom joo xam ni bu ñëwee njabootu yenant bi yépp jullit yi ci jaaxle bu woowee turam yàlla tinu ko doom joo xam ni jullit bu jaaxle bu woowee turam yàlla tinu ko doom jooju dina ëpp mbir kum bokkal jamono doom jooju nag soxna sii dina ko jur bala moo yàgg dina ñëw léegi moom mu ni xifeet yeewu tëddaat ci ëllëg sa loolu ko sunu boroom di wan feeñuwaat ko ni ko nag doom jiñ la waxoon dina ñëw doo nekk baayam dañu Abdou Kumbaan ñang ah, daal di woolu soxna Awa Buso mu ñëw mu ni ko ah xam naa damay bëgg ak yéen àdduna xëy na soxna Awa Buso ni ko tax nga wax loolu mu ni ko ndax gërëm naa la gërëm loo xam ne duma la bàyyi mukk ci sama dund te sunu boroom mësuma wan lu ma gisul te wan na ma ni nar ngaa am doom joo xam ni bu ñëwee ku jaaxle woo ko aajoom faju doom joo xam ni ku mu bokkal jamono dina lay ëpp ëpp mbir te doom jooju nee nañ ma yaay nekk ndeyam te man duma ko jur te man maay sa boroom kër te duma la bàyyi kon ci laa xame ni léegi ma génn àdduna xëy na ki lay jël sama ginnaaw a koy jur ca déwén sa di xare Samba Sadio moo amoon fële ca wetu kokki 1875 mu dem ca ca la wàccub liggéey soxna si liggéeyam mat fa benn bi sëñ bu Mbusoobe woo Sëriñ Tuubaa mu ñëw mu ne ko man mii sa nijaay de am na lu ma taamu diisoo naa ko sama borom te booba sëñ bu Mbusoobe xutbu dama laa bëgg a dénk sama doom ji nga denc ko sëñ Abdou Koumbañ aan ña nga ko yoroon ba am ci sëñ aafe mais yow laa ko bëgg a dénk sëñ bi nangu loola bu mu ko jëlee la ci am sëñ Fall tekki soxna Mariama Kunta Mbàkke kon la mu jox lañ ko joxoñoon doom joo xam ni ku jaaxle boo ko woowee mu xettali la am na doom jooju doom joo xam ni mooy ëpp mbir ku mu bokkal jamono sañ Fàllu kenn la moom rek la yàlla defal tukkulóoru sëñ Fàllu njaagob sëñ Fàlloog sooseb sëñ Fàlloog tiijaanu sëñ Fàllu loolu yëpp dégg ngeen ko tubaabu sëñ Fàlloog portugais su sëñ Fàlloog espagnolu sëñ Fàllu man de yëpp dégg naa ko kon kum mbokkal jamono moo lay ëpp mbir moom sëñ Fall kooka nag ku jaaxle woo ko sa aajo faju ñaataa jaaxle woo sëñ Fall moo tax keroog bi muy ñëw nag sëñ Touba woolu baayam bu ñuy wax maam Jaara boroom Saam mooy magi sëñ Touba ak maamam sëñ Mbusoobe mi nijaayi sëñ Touba mu ni leen nag sunu boroom li ma digoon agsi na dina am doom ju yéeme dina ñëw sama njaboot. guddi gi muy feeñ nag day dëppoo guddi gi yanant bi rañaanoon muy ñaar fukkeel bi guddeeg juróom-ñaar ci rajab kooku bu ñëwee ku mu bokkal jamono dina la upp dina la ëpp mbir waaye bëgg naa bu waxtu wa jotee ngeen tuddal ma ko yàlla mi koo indi nag sama kër nee na moo ko njëkk a tuddal boppam Muhammad la ko tudde waaye liy topp ci tur bi moom jundullaahil xaaliboon lay yónni ay malaaykaam la ñuy doon ñu wàccal leen ko ci jaww ji bu ngeen nee Muhammad teen leen ci jaww ji xool di ngeen gis liy topp ci tur bi ngeen ko damay fekk ci xal xalwa ba waxtu wa jotee ba ñu muhammad ba ñu téenee ñoom ñaar ñépp gis nañu ci biir lu biir alfaadilu ñu tudde ko muhammadul faadilu sëñ fàllu mi boroom ngëneel yi muhammad la ko sëñ tuubaa waaye alfaadilu moo yor ngëneel yi mu feeñ nekk kéemtaan toll ci dal jàng sëriñ bi boole kook magam ju baax ja sëñ Modou Moustapha al Karim mësuta sàllalu turam saa bu waxee naan sama mag ju baax ja rek lay wax ñu boole leen dalal leen alxuraan ñu ngi leen dalal ci garabu dimb gi nekkoon ci kër sëñ son yi bu ci daaru naar daaru rahman fooy leen sëñ Tuubaa dalal ñu jàng alxuraan ba àgg ci sóotu yaasin dogal bi wàcc sëriñ bi war a dem ci tukki bi daal jël seen jëmm ya jox leen rakkam jëmu gërëm maam Cerno jox leen mu jox leen sëñ daam abdourahman loo ñu àggale alquran ginnaaw bi mu jox leen sëñ borom daaru mu tarbiye leen jàngal leen xam-xam moo tax sëñ fàllu daan wax sunu bàyyi ba cerno danoo jàngal bañ ñi xar mu yar ñu bañ ñi nër mu yeenu bañ ñi jar ñu jox leen borom daaru biñ demee ba sëriñ tuubaa ñibbisi ba demaat gànnaar ci la laaj maam cerno ni ko indil ma njaboot sëñ Fallou demoon na gànnaar mook sëñ moodu Moustapha ba ñu ñëwee juróom-ñett la sëñ Touba boole ci benn néeg ñoo daan bokk benn néeg juróom-ñett ñëpp di ay mbokkam sëñ Abdou Diambacke du yoole yi ma tudd léegi ci la bokk mook sëñ Fallou bokkoon lal sëñ moor soxna taawu Maam Jaar ak sëñ Modou Moustapha di bokk lal juróom-ñett ne ci néeg bi benn ndab lañuy ñuy ndab liñ daan xéewloo ndabal gor yi lañ koy woowe ndax la cay nekk day tuuti du suur benn nit te ñoom juróom-ñett a koy bokk te ku nekk danga ko koy yéene sa morom di ko buux te bu leen sëñ Touba ngëbalee benn ngëbu loxob sëñ Touba ci cere baraay moom lay sotti ci ndab li def ci tuuti ndox ni leen bala ngeen a jëfandikuwaat ci xéewal gi ëllëg daa jot ci waxtu wi ma leen ko joxe woon 24 heures ba 24 lañ koy lañ koy laal buñ ñëwee bokk ko ñoom juróom-ñett sëñ bi di leen tarbiye tarbiye ju metti ba ni sëriñ bi jógee gànnaar ñëw foofa jàng dañ fa xeeti xam-xam yépp gën a approfondir seen arab ba ni ñu ñëwee sëñ bi dem Ceyeen Jolof ñu nekk ak sëñ bi Ceyeen Jolof bis sëñ Tuubaa woo leen sëñ Mor Roqaya Buso yaayam mooy soxna Roqaya Mbàkke mook sëñ Tuubaa ak maam Cerno bokk benn baay maam Mor Anta ko jur kon jarbaatu sëñ bee sëñ Fallu sëñ Moodu Moustapha ak sëñ Masamba Mbàkke mii rakki sëñ Tuubaa ñu daje ci Jolof sëñ bi ni dama leen bëgg a dimbali ndax gëm ngeen ma lool waaye ku bëgg a am sama kër dama lay wax fi ngay jaar ba am sëñ Fallou ne loolu rek ama ci soxal ne fu muy jaar ba am rek moom rek laa du déglu sëñ bi ni du bàyyi kenn ci yéen sëñ Fallou nee na maag sëñ Modou Moustapha ñu xam ne ndeke duñu ay doom ndax sëñ Touba amul moroom amul maas ñoom sax woowuñu ko bàyyi ñoom du bàyyi kenn. nee na maag sëñ Modou saa ñu xam sunu bopp mu ni duma magi kenn sëñ ma Masamba xam boppam mu ni duma duma nijaayi kenn ci yéen sëñ moo roqee bu sëni kon man tam duma ci jarbaat mu ni li fi nekk mooy ak taalibe ku leen ko ëppale rek moo leen raw ci sama kër lu waay bëgg rek taalibe koy maye sëñ fàllu jóge ca defaat beneen xeetu njébbalin jël këyit bind xasida ni damay jébbaluwaat ci sëñ Tuubaa du doom ju bëgg a donn baayam du ma ta sëriñ bu bëgg a seex nañ may dégg ci moom rek daal di jël kër gi mu njëkk a am jox ko sëñ Tuubaa hadiya bindal ko ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett ci loxo boppam bokkut ak yi mu bokk nag dem ba mu yàgg mu bind ko ba muy ñen fukki kaamil te bokk na 313 kaamil yu mu yut sañ Tuubaa jël xasidaam indiwaat beneen njébbal lan la wax sëñ Tuubaa dani yaa ay yaa ayuha cheikhu nafisul murtaja yaa fatihan maa xablu kaana murtaja bientu bu noo watiya bil iraada lakum li kay ohza bi xarqi aada min baadi mastaraytumuha minni ahdaytuha lakum bi gayri manni faltaqbaluha ya malaadu karama la ziltumu bayna al baraya alama nee na yow sama sëriñ bi nga xam ni àdduna yaa ci gën a riche wax na dëgg sëñ Touba gën a riche ci àdduna tax ku am sëñ Touba waratoo jooy dara loo ñàkk ndax am nga lépp mu ne ko yow sama sëriñ bi gën a riche ci àdduna yow mi nga xam ni buntu yaakaar yi tëju woon yaa nu ko ubbil ba ñu am yaakaar jur gi ma jur de li muy neex neex jaay naa ko jënde ko ak taalibe waxul sax jur de si man njur si maanaam doom si ma doon ci yow da koo tasxiir bu noo wëtti ya la wax doom si ma doon ci yow jaay naa ko jënde kook taali soo ma fayee njëg li defaat naa ko hëddee ci yow nañ may dégg ci yow rek bu dee am na lu may sàkku daal naa nekk xar baax sëñ Fallou xar baax la laxasu lu ney muyet ko sëñ Tuubaa xanaa xamul leen ni ñaar fukkeel bi kaamil juróom-ñett bi mu ko joxee sëñ Tuubaa ci la dimbilee xol bu bëgg sëñ Tuubaa daa jox kaamil bi sëriñ bi sëriñ bi xool kaamil bi ni ko sa kaamil bi gën a rafet mu ne ko sa barke képp lañ ko fàggoo bindu ko sëñ bi ni ko sëñ Fallu mu ni Mbàkke mu ne ko kaamil bii nga ma yót am nga ci yóbbante sëñ Fallu ni ko yóbbante kan mu ne ko yàlla sa borom mi ma sàkk-sàkk la moo ci yóbbante sëñ Fallu ni ko lu yàlla wax mu ni sunu borom nee na daa bëgg nga defal ko kaamil bu mel ni bii nga ma bindal sëñ Fallou ni sëñ Touba neel yàlla su bëggee sama kaamil damay fay sëñ Touba ni ko sunu borom nee na lum ciy fay sëñ Fallou ni ko nee ko na bàyyi ba ma àggal kaamil bi su ma bindee ba àggal su ko jaralee mu door maa fay sëñ Touba ni ko sunu borom nee na nga tàmbalee bind. mu daldi tëju bind kaamil bi ba mu àgg mu indil ko sëñ Touba ni ko kaamil baa ngoog bu jaralee borom bi rek mu fay. sëñ Tuubaa niir niir ba mu yàgg muuñ ni tubarkàlla suñu borom nee na kaamil bi neex na ko lu muy fay sëñ Fàllu ni ko nee ko ku la bëgg te muy dëgg xolam bii nga ciy fanaan bu ëllëgee bu mu tàbbi sawara loolu laay fayeku sama kaamil bi sëñ Tuubaa ni ko li muy jafe-jafe yàlla may na la ko ci kaamil bi kon ñëpp amel cant Seex Muhamadu Fàllilu amel nañ ko tam cant ndax le 7 vingt 1928 moo aji màkk ajal yoon wi ajal yi sëñ Tuubaa bi muy dem maam Cheikh Anta borom daaru salaam ak gaawaan borom dërëm ak ngërëm borom jannatan ilal jannati rek kooka moo financé ak Makka gépp maam Cheikh ko fay. ma wax la fukk ñu toog première classe tubaab yi sax booba jamono mënuñoo fay première classe bi noonu maam Cheikh Anta fay fukki première classe la fay sëriñ Touba moo ko defal barke defal ko tawfiix waaye fi mu. fi mu ko defaat mooy ci sëñ Touba ba mu mat moom maam Cheikh mu fay fukki billet yoo xam ne bii rek laata ñëw te ñeent fukki ñu ko gunge ñu ngi wala toog ci première classe bi da nga daan sëñ Fallou sëñ Mbacke Bousso maam Cheikh Anta Serigne Tako Mbacke sëñ Mawlaayo Bousso El Ibrahima Dia sëriñ Mayoro Fall. sëriñ du Ndiaye Diop sëriñ Mbacke Seck maître boulanger Souleymane Paye fukk ñee toog ci première part sëñ Fall sëñ maam Cheikh Anta Paye la le 7 mars 1928 juróom benn weer ñu dem Màkka ba dugg juróom-ñaar ba dem Màkka yombul nga def ñetti weer ci aller bi ñetti weer ci retour beeg lu teg maam Cheikh Anta Faye ko sëñ Fall ni waaw waaw borom barak bee waxoon da koo yéene dañ koy àggali yéeneem ànd ak mag ñooñu mën a tudd ñu dem defali sëñ Touba loolu war naa tax ngeen ngeen gàttandu weer wii sëñ Fallou feeñ waaye xam nga bu ci topp màggal gi nga xam ne tey daj na àdduna màggaluk sëriñ Touba gi nga xam ne sëñ Bamba ko wooteel boppam ci 1922 ama tal sësin bisu talaata wax ko sëriñ Cheikh Balla Faali Dieng sëñ Modou Diaw Paxala yónni mu woo ko màggal googu sëriñ fàlloo ko woote biir Touba ndax ci njaal benn ku ne sa kër nga daan màggale bàyyi na Jaw moo ma nettali mu ngi fiy dund mooy xalifa sëñ Móot Jaw paxa man mii moo ma woo ni ma damaa bëgg nga fekk ma paxa waxtaanal ma sama bàyyi sëñ Móot Jaw ma dem fa waxtaanal ko ba nopp mun damaa bëgg ci waxtaan wi kaay ma wax la yoo xam ni maa ko dégg direct sama bàyyi wax ma ko moo ni ma sëriñ fàllu ñëw na fii ci dëkk bi 1945 ma booba ndaw laa mu seet si sama baay sëñ mët jaw pax keroog bi muy ñibbi ba toll ci oto bi nee na sëñ moot jaw daa génn ci biir dàqi sëñ Fall ba mu agsee ni ko maa ngi doon bëgg a fàtte dama am sa yóbbante sëñ Fall ni ko Baye Modou ban yóbbante la mu ne ko sëñ Touba ma yónni woon ci yow te boo gisee may dund ba tey mag ñëpp dem barzaq demaguma yóbbante sëñ tuubaa bi ma waxagul la saa bu ma ko waxee ba noppi waaj dem waaye feeg waxuma yóbbante bi duma dee ci diggante ndax sëñ tuubaa daa fonk yóbbanteem te moo ma ko yóbbante woon ci yow sëñ Fallou ni ko waaw lu yóbbante bi mu ni keroog bi mu yón bi ma yónnee ma woo sëñ Balla Faali Jeng mu jox ko ndigalu màggal gi moo ni ma woon sama doom ji tudd sëñ Fallou saa boo fekkee mu jox sama xilaafa gi nee ko màggal gi na ko woote biir tuubaa su ko fa wootee dinaa summiku ci moom muy man may moom te di ngeen ko fekke mu ne nag kon sëñ Tuubaa waxoon loolu nee na saa boo wootee màggal gi dina nekk yaw nga nekk moom day summeeku ci yow sëñ Fàllu ni waaw waaw dinaa ko waaj woojal woote ko waay ndax may moom moom rek laa bëgg a doon ca déwén sa di 1946 sëñ Modou Diaw ni defatuma fi dara wax naa yóbbante sëñ Tuubaa woo taalibe yi sant leen toolu wëttéen ñu defar ko mu ne na ngeen ko lew na lew ndax li ciy jóge ci laay fàggoo perkaal bi may demee barzaq damay waaj 46 googu la dem barzaq ca déwén sa 47 sëñ Fallou ni waa na ma ñëpp fekk fii waay mu gën a neex gën a yaatu da ca kanam rek borom barak bi ko santaane woon toog fii di ko seereel boppam noonu ñëpp fekk Touba waay defe naa wooteem boobu tey àdduna dégg na ko waxuma Sénégal adduna man ren màggal maa ngi ko defee Berlin biir Allemagne te Allemagne sax day dem bay bëgga xumb gën a xumb léegi fii kon àdduna dégg na ko noonu la Allemagne mel noonu la France mel noonu la Brésil mel noonu la Argentine mel noonu la Canada mel noonu la Belgique mel noonu la Italie mel noonu la Russie mel noonu la Ukraine mel noonu la Amérique mel te sous raison bépp Tuubaa sant sëriñ bi mbokk yi beneen bi ci topp mooy jumaay sëriñ Tuubaa ji sëñ Falloo ko àggaleel sëñ Tuubaa yéen ñëpp xam ngeen le 7 juin 1963 la jeexal liggéey bi xam ngeen ñaata la ci def 677 millions 445 mille 335 francs 677 loolu nag jege na milliard ci 1963 le 7 juin 1963 yëkkati sooroor bi gën a kawe lu tuddee naa ko sama baay Cheikh Rafal kuy duggati moo lay seere kuy génne mu seere lampa ngoog du ko fàtte mukk moo tax kenn xamul maam Cheikh Rafal lu mu doon moo ko fàtte mukk waay toog nag ni may Sénégal 45 mu jot ci xilaafa gi magam ji ñibbi aljana si le 2 juillet 1945 la sëñ Modou Moussa Guèye sëñ jot xilaafa gi nekk fi deuxième guerre mondiale mbokk yi booba lekk yombul ràkkal dañ ko daan xëccoog fas yi ràkkal booba nit du lekk ba suur xamuñu ko booba dañuy naan sibet di ko xëccoog jur gi booba benn kër nit benn nit a ci am yére moom lay sol dem dox yitteem bu ñëwee abal keneen xaalis kenn du ko teg bët ndax jaxe ñu jóge ci guerre mondiale crise am àdduna bépp takk dara neexatul jàmm amul suur amul naan ba màndi amul solo amul xaalis amul lépp jaxasoo benn savant bu ñuy wax Albert Einstein ndayam allemande la baayam américain defar benn formule bu ñuy wax E égale mc au carré ñu créé ci lu ñuy wax bombe atomique largué ko sur Hiroshima ak Nagasaki ñi nga xam histoire xam ne li ma wax Japon Chine di tàkk àdduna bépp jote xeex am ñépp jaaxle di xaar traité de p am àdduna bi jaf jafe sëñ Fallou jot ci xilaafa gi ni maay sëriñ Touba day yàgg day neex jàmm rek daal ni atul rasululaay waay ndax rasulaay dañu woon lay rek mën a cëpp kon atam rek xam ngeen ni rasulaay dañu lay mën a cëpp 8 juin la yenantu bi génn àdduna 6 août la sëriñ fàllu génn àdduna 8 ak 6 6 ak 8 dañu lay mën a cëpp bi mu rañaanee laa feeñ mu toog ñaar fukki at ak ñett yi rasulaay toogal islam ñeent fukki atam lañ ko yónni 23 ans la wooteel islam 63 ans la dund sëñ fàllu toog 45 68 muy 23 ans ñaar fukki at ak ñett na ma ñëpp ni nañ jàkk rek jàkka ngoog 23 ans day neex rek daal ni ràkkal meng jibo muut dara dareet jàmm ñooy kollu dadd fàllu Touba ak Daaru Salaam maa aye day yàgg day neex may sëñ Touba moom rek ka sa a toog fukki doomi sëriñ Touba ñaar nekk ci sàppe yi mu ni man mii may sëñ Bamba jiiñ nañ ko ku nekk waaye man maa ko waxal sama bopp may sëñ Touba waaye day yàgg day neex man mii ku ma gis-gis sëriñ Touba ku ma noppee gis koo gis doomi sëñ Touba la man mii sëñ Touba keroog sëñ Saaliw daa jël oto ziyaare ko addee ni ko ñoo ko déggale loola nga wax yaay sëñ Touba sëriñ Fallou bi fii jamono toll tey la gën a nekk ci xol yi tey la ko ndaw ñi gën a bëgg tey la ëpp ñëpp ay turandoo ba fii jamono toll àdduna dootul fàtte sëriñ Fallou 68 la fi jógee mbokk yi 55 ans bi mu fi jógee léegi ba tey ñu gën koo bëgg ba fii jamono toll ku ñu tuubal sax ñaari fàllu rek njaagob sëñ fàlloog katolikub sëñ fàllu ba tuubag lu ne ngay dégg fii jamono toll man ñépp ci faj aajo wax naa leen fii am na ku am ngénte mu di taawam di góor te ki ko am du murit mu ni yaa ah, man de dégg naa sëriñu murit yi ñu koy coow ni ku tabe la naa fa dem wax ko sama soxla rek ñaari xaritam la toogal booba kenn bëggul waxi murit mu wax leen loolu ñu ni ko man ban xalifa sëñ Fall su sëñ Tuubaa mu ni ki ñuy wax sëñ Fallu kenn ka ni ko moo tàyyil loolu waaye sëñ Fallu daa am lu mu lekk bay am lu mu la jox kooku bu amee lu mu la jox def ko seen jumaa jooju pour mu àgg tanew la de ko sëñ bi li nga wax ñaaw ñun ñëpp jullit lañu xelam a jàpp sëñ fàllu jullit lañu dafa am jaaxle ba ko rek mu dem mu ne waa man damay dem sax déglu ma ko damay dem daal di waaj fekk sañ fàllu mu toog ci buntu këram ci ngi gis gi ba mu ñëwee ba ne ko jàpp loxo nuyu ko sëñ fàllu nuyoog moom ni ko ah, naka mbokki kajoor waaye doon yitte yi mu ne ko damaa am taaw muy góor ma am ci jaaxle lool samay mbokk gi tàmbalee ñëw te awma dërëm bu ma ko ngéntee te ñun ngénteel taaw ci kajoor duñ ko bëtal day wàññi xale bi samay gan a ngi ñëw te tool yi moo laatu ñor léeguma sama mbay ma am jaaxle lool te xam ne jullit nga may jullit donte duma taalibe mu man dinaa la diis sama soxla lii ma indi mbàkke sëñ Fàllu ni ko léegi rek neel mott toog nee lu borom baraag bi indi ñu séddoo ko léegi mu toog tuuti oto gaare nuyu sëriñ Fàllu jox ko keesu xaalis mu ñaanal leen ñu dem deful ñaar fukki minute oto gaarewaat jox sëñ bi keesu xaalis deful ñaar fukki minute troisième oto gaare jox ko keesu xaalis muy ñetti kees sëñ Fallou berndel ko ba ngoon mu ne ana borom ngénte li waay mu ne maa ngi mu ne ko nel diis ba nii waxtaan mu ñaraam ba jege sëñ Fallou sëñ Fallou ni ko wàññal kees ku njëkk gi ñu xool góor gi nee na bi ma ubbee kees gi damaa tiit ndax booba juróomi dërëm xaalis la ay année cinquante ki soixante juróomi dërëm xaalis la booba nee na muy wàññi ba mu yàgg mu ne ko mbàkke suma ma juumul ñetti million ci nekk sëñ Fallou ni ko xanaa mën naa defar laax ak ceeb ngir gan yi ñëw mu ne ko ñetti million mën naa tabax jumaa sëñ sëñ Fallou ni ko waaw waaw tas yaakaaru ko ma yaakaar jëlal góor gi ni ko yu gisuma sa morom ni ñokket di dem mu ne ko des na kat jox ma geneen kees gi mu jël ñaareel bi kees sëñ Fallou ni ko wàññal mu wàññi ni ko fekk naa ci un million cinq cent million ak genn wàll sëñ Fallou ni ko naa doom ji mën na ci mbootu mu ne ko mbootu 1 million 500 gën a ëpp rek tàmbalee jooy sëñ Fallou ni ko bul saalit jox ma geneen kees gi mu génne ñetteel bi kees yot ko sañ Fallou ni ko wàññal mu ni téeméeri junne ci nekk sëñ Fallou ni ko boo delloo ci kër ga sa xarit boobu tudd Matar sant Kajaga ni awma lu ma lekk naa àggale jumaa ji ne ko jumaa ji àgg na waaye na ci na ci waaj ñëw sa ngénte maa ngi yëg lépp kon kooku kenn du moom moom sañ Fallou kooku kenn du moom moom sëñ Fallou koo ko defoon loolu daal jël doom gi tudde ko ko amaat doom tudde ko ba mu ko tuddee ñetteel bi doom sëñ Fallou woolu ko mu fekk ko Aliya mu ne ko waaw waaw keneen nag ndax mënuma doom ju ne ma xottil ko mboot waaye mën naa ku ma tudde doom ma dox sa diggante sawara kooku mooy sëñ Fallou kooku ajo yi moo koy faj noon na ku ñu roof ci bàmmeel ñetti fan boo ma gisul leen loo fa gis du la jariñ dalay lor rek kooku mooy sëriñ Touba biir ak biti weer wii nag xam ngeen ci la sëriñ Fàllu feeñoon ñaar fukkel bi guddi baak juróom-ñaar mu dëppoo ak rañaanu yenant bi alayhi salaatu wasalaam ngir indil nu julli kon yàlla nu yàlla defal dégg ak topp ñu ngi sant mbokk yépp ah, di ziyaare ñëpp di baalu ñëpp ak yàlla nañ ko teewee at yu bari waxtu wi jot na jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa maa ngi ziyaare sama mbokk mu baax mii waaw ah, sëñ bi ñu ngi ziyaar Njaay waaw ku baax la Euh, dama dëkk ak jigéenam ca fale ma nekke waaw sëñ Yankooba Njaay di nit ku baax ñu ngi koy siyaar ak sëñ Abdourahman nuyu tam sëñ Kalsaan Seen mu baax ma leen nga xam ni mu ngi fi ñëwal waa port yëpp ñu leen di siyaare bu baax a baax di di sant ñëpp waaw màggalu ñaari guddi yi ñaari guddi yi wallaay ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di baalu ñëpp ak di baal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi doon sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey